Abdu Rahmaan loo xam nga lu rëy loo xamle lu rëy loo ca Bamba def nga lu yombul wax nga lu yombul sa jëf ci yombul ca gaay Bamba man mu xaale man tudde xaale may doomi xaale naw gaay Bamba ma yab du xamle yow yaa ngi xamle lu jara xamle ñooy gaay bamba jànga la may lii gëstoo la may lii moo tax nga xam lii ca gaay bamba gëstu la mag ñaa ba xam ca mag ñaa di xam le mag ñaa ñooy gaay bamba gëstu nga ci may ba xam ca hay may di xamle hay may ca gaay bamba gëstu nga ca yi mbóot ba xam ca hay mbóot di xamle hay mbóot ca gaay bamba gëstu nga ca yiw ba xam ca xaw yiw di xamle xaw yiw ca gaay bamba gëstu ca xam-xam ba xam ca xam-xam di xamle xam-xam cagaayi bamba gëstu nga ci baax ba xam ci ak baax di xam ne ak baax cagaayi bamba gëstu ca xar baax ba xam ca xar baax di xam ne xar baax cagaayi bamba gëstu ca baatin ba xam ca baatin di xam ne baatin cagaayi bamba jaajëf baax naa xam naa ni baax na teralit baax na ngir jëmmi bamba jaaju baax na xam naa ni baax na teralit baax na ngir jëmmi bamba